juróom benn fukk yonent yàlla ya ak ndorteel linjil asalaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faw am nanu mbégte ci leenu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci sunu waxtaan wi weesu àggale woon nanu sunu tukki ci xaaj bu jëkk bi ci mbindu mu sell mi di xaaj bi ëmb tawreet saboor ak téere yonent yi xaaj bu jëkk booboo ngi tudd kóllëre gu jëkk gi ci français ñu koy woowe ancien testament tey jii nag dañu fas yéene dugg ci ñaareelu xaaju kàddug yàlla ñu koy woowe ci français nouveau testament maanaam kóllëre gu bees gi lu tax yàlla seddale téereem bu sell bi ñaari xaaj yi di kóllëre gu jëkk gi ak kóllëre gu bees gi li ko waral mooy lii lépp li yonent yàlla yi bind ci kóllëre gu jëkk gi bindoon nañu ko laata almasi bi juddu waaye lépp li nekk ci kóllëre gu bees gi bindoon nañu ko gannaaw ba almasi bi juddoo naka noonu xebaaru yonent yàlla yi bindoon kóllëre gu jëkk gi moo doon yàlla dina yónni almasi bi waaye xebaaru kóllëre gu bees gi mooy yàlla yónni na almasi bi ni mu ko digee woon jaarale ko ci ay yonentam ndax solob kolëre gu jëkk gi ak solob kolëre gu bees gi leer na naññ ci sa loolu lu am maanaa la ndaxte dafa am nit ñu bëgg a tuumaal mbind mu sell mi ndax li mu am ancien testament ak nouveau testament ci xalaatu ñooñu li nouveau testament di tekki mooy dafa am ñu bëggoon a jël beneen téere mu wuutu mbindi yonent yi waaye du noonu téereb nouveau testament maanaam kolëre gu bees gi tebbiwul li yonent yu jëkk yi waxoon waaye dafay wone ni yàlla amale waxu yonent yi sax ndaxte ci kolëre gu jëkk gi yonent yàlla yépp dañu doon yégle ne almasi bi dina ñëw dina ñëw dina ñëw waaye xebaaru téereb kolëre gu bees gi mooy almasi bi ñëw na ñëw na almasi bi yonent yàlla yépp doon yégle bu yàgg ñëw na loolu mooy xabaaru kóllëre gu bees gi kon nag mbokk yi mën nanu sant yàlla ak xol bu sedd guy ci li mbind mu sell mi ëmb kóllëre gu jëkk gi ak kóllëre gu bees gi ndaxte ci ñaari xaaj yooyu mën nanu ci gis ne li yàlla dige woon bu yàgg def na ko yàlla wàcceel nanu musalkat bi mu digoon sunuy maam ci tawreet saboor ak téere yonent yi ni gif di saxe ba nekk guy noonu la kóllëre gu jëkk gi mate ci kóllëre gu bees gi ni ko lu bare ci yéen xame ba noppi xaajub ñaareel bi ci mbind mu sell mi di kóllëre gu bees gi am na weneen tur tur woowu mooy linjiil linjiil baatu arab la buy tekki xabaar bu baax bi ci lu wóor xabaaru téereb linjiil xabaar bu baax lool ndaxte day nettali ni almasi bi matale li yonent yàlla yi yëgle woon ba ubbil doomi aadama buntub jàmm fa kanam yàlla ba faw ci li jëm ci téereb linjiil nag war ngeen xam ne almasi bi moom ci boppam bindu ko woon waaye yàlla dafa jëfandikoo woon ñeenti nit ngir ñu bind nettali almasi bi gane ci àddina ñeenti nit ñooñoo ngi tuddoon màcc mark luk ak yowaana lu tax yàlla xiiroon ñeenti nit ñu bind nettalib almasi bi lu tax jëfandikoowul woon benn nit rekk ngir mu bind liñ jël ndaxte yàlla dafa nu bëggoon a jottali kàddu gu wóor te mata nangu yàlla dafa bëgg a jëfandikoo ñeenti bindkat yooyu ngir dëggal kaddoom ni taabalu ñeenti tànk di gën a dëgëre taabalu benn tànk doom noonu itam la ñeenti seede gën a wóore benn seede kese naka noonu yàlla jëfandikoo woon na ñeenti seede ngir nu mën a xam ne lépp li nuy jàng ci linjiil ci mbirum almasi bi lu wér peng la amul siki sàkk ni yàlla sole woon ay waxam ci xeli yonent yu jëkk ya noonu la yàlla xiire itam ñeenti nit ñu bokkoon jamono ak almasi bi ngir ñu bind li ñu gisoon te dégg ko ci mbirum musalkatu àddina si ndax xam nga ci ban làkk la màcc mark luk ak yowaana bindoon linjil bu seel bi ci làkku grek lañu ko bindoon waaye nun dinawu ko jàng ci làkk wolof ndaxte lu ëpp ci nun nu grek nu ngiy gërëm yàlla ci li mu def ci xoli ay boroom xam-xam fii ci senegal ñu jël linjil bu grek bi sottil nu ko ci wolof naka noonu téereb linjil bi nu am ci sunuy loxo tey dëppoona ak li yàlla soloon ci xeli macë mark luk ak yowaana waaw léeg-léeg dañuy dégg ñiy fexe bare bërek linjil di wax naan kenn mënu ko wóolu dafa fees ak wax yu ci soppiku ak ay njuumte ak i werante ak nangam ak nangam waaye ku bëre noonu ak linjil bu sell bi mu ngi bëre ak yàlla moom ci boppam te nen du bërek doj mbir sell mépp dafa wóor ni kàddug yàlla mate sëkk ci tawret ak saboor noonu la mate sëkk itam ci linjil mbind mu sell mi dëngul fenn kenn mënul randal wax yàlla yàlla màgg na te àttan na aar kàddoom kàddug yàlla ngi dund tey sax kenn mënu ko soppi noonu la borom bi moom ci boppam wax ci li linjiil bi mu naan asamaan si ak suuf si dinañu wéy waaye samay wax duñu wéy mukk kon nag mbokki déglukat yi waxtu na wara tàmbali sunub tukki ci linjil bu sell bi di kolore gu bees gi aksi na ci sunu émission bi weesu jàngoon nanu ci mbirum yonent yàlla malasi mi jiito woon almasi bi lu toll ci ñeenti téeméeri at te war ngeen xam ne ci diirub ñeenti téeméeri at ci toppoon ci jamonoy malasi yàlla yebalul woon ci xeetu yawut yi benn yonent ngir mu waare te bind kàddug yàlla lu tax yàlla yóoniwul woon beneen yonent ndaxte téereb kóllëre gu jëkk gi matoon na yàlla waxoon na lépp li mu bëggoon a wax jaarale ko ci yonent yu jëkk ya léegi yàlla dafa doon xaar jamono ji muy tëral kóllëre gu bees jaarale ko ci dikku almasi bi jàngoon nanu ba noppi yëgleb yonent yàlla esayi ak yonent yàlla malasi ci ni yàlla façon yéene yoni benn yonent ci kanamu almasi bi ngir xalal ko yoonam ndax xam nga ban yonent la woon mooy yonent yàlla yaxya baayu yaxya moo doon sakariya sakariya sëriñ la woon buy liggéeyal yàlla ci màggalukaay ba nekkoon ca yerusalem léegi nag nanu dugg ci linjil ngir déglu li luk bindoon ci mbirum juddug yonent yàlla yax ya nu ngi jàng ci saar benn mbind mu sell mi ne na ca jamonoy erod mi nekkoon buur ca réewu yawut ya amoon na sëriñ bu ñu tuddey sakariya te bokk ca mbootaayu sëriñ sa askano ci abiya jabaram elisabet askano moom itam ci arona sakariya ak jabaram ñu jub lañu woon ci kanamu yàlla di topp ni mu ware ndigal yi ak dogali boroom bi yépp waaye amuñu woon doom ndaxte elisabet mënul woon a am doom te it fekk ñoom ñaar ñépp ay màggat lañu benn bés nag sakariya doon def liggéeyu sëriñam ca yàlla ca waxtu wa ñuy taal cuuraay la mbooloo maa nga woon ca biti di ñaan noonu benn malaakam boroom bi daldi feeñu sakariya taxaw ca féeteeg ndeyjooru taabal jañuy lakke cuuraay naka la ko sakariya gis fitam daldi dem mu tiit waaye malaaka ma ne ka bul ragal dara sakariya ndaxte sa ñaan nangu na elisabet sa jabar dina la jural doom te dinga ko tudde yaxya sa mbég lay doon sa xol sedd ci te ñu bare dinañu bég ci juddoom ndaxte dina nekk ku màgg ca kanamu yàlla du naan biiñ wala dara luy màndil te bu juddoo xel mu sell mi dal di ko solu dina delloo si niti israel yu bare ci yàlla seen boroom mooy jiitu di yëgle ñëwu boroom bi ànd ak xoli baay yi ak doom yi ngir delloo ñi déggadi ci màndu teg ñi jub noonu dina waajal mbooloo muy teeru boroom bi sakariya daldi ne malaaka ma nan lay xame ne loolu dëgg la ndaxte mag la te sama jabar it màgget na malaakama tontu ko ne man maay jibril mi taxaw ci kanamu yàlla dañu may yónni ngir ma wax ak yow te yëgale xebaar bu baax boobu léegi nag gannaaw gëmuloo li ma la wax dinga lu te dootuloo mën a wax ba kera sama wax di am bu jamonoom jotee fekk na booba mbooloo maa ngi xaar jaaxle lool ci li sakariya yàgg ca bërëb bu sell ba sell ca biir kër yàlla ga waaye bi mu génnee nag mënula wax ak ñoom noonu nit ña xam ne dafa am lu ko feeñu ca bërëb bu sell ba dafa lu ba di leen liyaar bi sakariya matalee liggéeyu sëriñam ba noppi mu daldi ñibbi bi mbir yooyu weesoo elisabet jabaram ëmb te naan lii mooy yiw wi ma boroom bi defal ba fajal ma li doon sama gàcce ci nit ñi kon gis nanu ni yàlla yónnee woon jibril malaakam ci sakariya ngir yëgal ko ni ko elisabet jabaram naroon a jurale doom ju góor ji nara nekk yonent bu mag bi xàll yoonu almasi bi naka noonu ci mujjug saar wi mbind mi nee na gannaaw loolu jamono ji elisabet wara mucc agsi mu daldi jur doom ju góor dëkkandoom yi ak mbokkam yi yëg ne boroom bi won na ko yërmande ju réy ñu ànd ak moom bég bi bés ba dellusee ñu ñëw xarafal si xale ba bëgg ko duppee baayam sakariya waaye yaayam ne leen déedéet yaxya yalay tudd ñu ne ko amoo menn mbokk mu tudd noonu ñu daldi liyaar baayam ngir xam nan la bëgg ñu tudde xale ba sakariya laaj aliwo bind ci ne ya la tudd ñépp daldi waaru ca saasa yàlla dindi luugi sakariya daldi waxaat di màggal yàlla waa dëkk ba bépp jaaxle xew-xew yooyu siiw ca tundi yude yépp ñi dégg nettali bi jëm ci mbir yooyu dañu ko denc ci seeni xool te naan nu xale bi di mujj nag ndaxte leeroon na ne dooley boroom baa ngi ànd ak moom sakariya baayu yax ya daldi fees ak xel mu sell mi noonu mu wax ci kàddug yàlla ne cant ñeel na boroom bi yàlla yi israel ndaxte wàllu si na mbooloom ba jot leen feeñal nanu musalkat bu am doole bi soq ko ci askanu daawuda jaamam ni mu ko yëgle woon bu yàgg jaarale ko ci ay yonentam yu sell yàlla wone na yërmandeem ji mu dugoon sunu maam te di fàttaliku kóllëreem gi mu fas ak ñoom di ngiñ li mu giñaloon sunu maam ibrahima gannaaw ba sakariya waxe loolu ba noppi mu daldi wëlbatiku ca yaxya liir ba wax ci mbiram naan yow nag doom dinañu lay woowe yonentu aji kawe ji ndaxte dinga jiitu di yëgle ñëwu borom bi di ko xàllal yoon wi dinga xamal mbooloom ni leen borom bi mën a musale jaare ko ci seen mbaaluk bàkkaar ndaxte yàlla sunu borom fees na ak yërmande ba tax muy wàcce ci nun jant buy fenk ngir leeral ñi toog ci lëndëm takkandeeru dee tiim leen ngir jiite ci yoonu jàmm noonu la sakariya doon màggale yàlla gannaaw bi yaxya juddoo ndaxte sakariya xamoon na ne jamono ji almasi bi wara feeñe agsi na yaxya doomu sakariya du woon almasi bi waaye ki wara jiitu di yëgle dikku almasi bi di ko xàllal yoon wi jërë ngeen jëf ci déglu bi ndegam neex na yàlla ci njàng mi ñëw dinanu gis ni yàlla yebale malaakaam jibril ci benn janq bu tudd mariyaama ngir yëgal ko juddug almasi bi su ngeen amee ay laaj ci li nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax kili li Sakariya waxoon bi mu naan cant ñeel na borom bi ndaxte feeñal na nanu musalkat bu am doole ni mu ko yëgle woon bu yàgg jaarale ko ci yonentam yu selli